keroog ba muy prêter serment ba muy laata génn salle bi la woo Habib Thiam ni ko prépare-toi tu vas être mon premier ministre Moustapha Niass ay laa dem leen laaj ko nguur noonu lay demee kon li wér mooy nañuy bàyyi nit ñi tànn ki ñu bëgg man Idriss sekk waxoon na ko dama koy dama koy fekk parce que dañuy waxtaan benn bis mu ni ma yi ñu def yëpp ci code bi dañ ko war a dindi ku ñu tëj six mois ku ñu tëj un an nag nañ ko dindi man ko mais. bu nit nekkee ab sàcc bu ñëpp xam ne sàcc la ñu tëj ko deux ans wala dix ans mu génn kaso bi mën a doon président mun ma bu Sénégal yi bëggee ab sàcc jiite leen lu ci sa yoon ah mais c'est vrai xam nañ ni kii kaso ba la jógee xam nañ ni tëj ñu ko ba mu génn malgré loolu ñu ni ko yaa ñu doy lu ma jubal donc ñun am nañu candidat man am naa candidat ñun am nañ candidat mooy Amadou Ba mooy suñu candidat parce le candidat du président Macky dañuy def lépp lu ñu man pour mu falu amuñu ci sikki sàkka mu jaar ci yoon mais bu Sénégal yi xëyee nii Issa Camara mooy suñu président on applaudit amuñu ci problème parce que man damay wax toujours ni kenn du ma dégg ci contestation après élection ndax lu am rek damay gëm ni yàllaa ko bëgg jaarale ko ci diw ci population bi ñu fal diw bu ñu la falee nag dinaa la jàppale ba sa cinq ans jeex soit ma dooni candidat wula ma wut candidat mais moment bi ngay exercer di bëgg lu jëmale réew mi kanam dinaa lañ jàppale dans l'intérêt du pays bu ñu bokk parti bu ñu joxe dara parce que nit mën nga ko jàppale ci façon bu ne. Mm-hmm. mais ñii tout le temps dañuy xuloo ak man ni ma may yow ci sujet Macky Sall naa def ni nangam naam joxu la lii joxu la ma la mais defal moo ko ko. ñu ngi nii tout le temps débat boobu dañ am man ne defuma ko pour Macky Sall je le fais pour donc ñaari façon yooyu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy xëccoo. Euh, ñu gis ni aussi am na ñoo nga xam ni dañu utiliser surtout des médias étrangers bi ma ci gën a ràññee parce que dama ko seetaan régulièrement France 24 RFI ñu indi ay nit yow dañ naan spécialiste des question africaines mais buy wax da ne kii xamul sax luy Afrique xamu ci dara yow mi dund réalité ak li ñu lay wax da yéemu ci yàlla benn bis maa ngi nekk Paris am benn nit bi ma doon waxtaanal mu ni ma mu ni ma man bugg naa ñëw Sénégal mais dama ragal yàgg na li may wax ne war na mat ay 6 ans ou 7 ans ma ne ko da ragal lu xew Sénégal looy ragal mu ni ma guerre bi am Casamance <laughs> xam nga kooku yaakaar na ni yaakaar na ni foo toll Sénégal bal yaa ngi romb naan tuy tuy tuy ma ne ko mais guerre bi yow li nga ciy dégg ak li nga xam man xaw ma ko ci. donc c'est des gens vie ne vivent pas nos réalités mais loolu c'est pas le plus grave parce que damay wax léegi damay wax sànq ni ñun en tant que africain ñoo am fu war a mat séq ak occidentaux yi li ñu war a séq ak ñoom bon nangu aussi nii quand même il faut le dire France ñàkkul ni gis nañu li xew ci yenn réew yi ñu wër ba ñuy jéem a soppi seen doxalin seen diggante ak Afrique mais loolu wax naa ko sànq dinaa ci am waxtaan ak les jeunes qui qui sont avec nous waxtaan ci vraiment parce que il faut ñu xool l'avenir de nos relations entre ñun sénégalais et les français par contre boo jëlee le cas des États-Unis ñu ne dañuy dugg ci suñu politique intérieure ma ne ñëpp ñu mën a jox ay leçons de démocratie ba mu des américain keneen sax mënuñu ko jox parce que tous les autres pays yi ngeen di dégg ëpp ñu démocratie li nit ñemee wax Sénégal maa ngi def ko boo ko defee France kaso ngay fanaani boo ko defee États-Unis kaso ngay fanaani on n'a pas de problème mais mieux ñun depuis le code de 92 93 élection 92 ba léegi malgré coow li li muy bari bari bu ñu wootee ba pare Abdou Diouf dafa woo Abdoulaye Wade ne félicité di ko gañe nga Abdoulaye dafa woo Macky Sall ko gañe nga Macky Sall doonatul candidat sax far bay félicité kenn kon ñun suñu élection mi ngi jaar ci yoon mais ñëpp a ñuy fàttaliku mbaa ñu bari boobu élection George Bush junior parce que bu ma nee junior papa ji dafa doon président ak doom ak doom ji bi ñu koy lii parce que bu nga xamee système américain ni ñuy voté mën nga ëpp mbooloo te doo falu da nga ëpp mbooloo mais doo falu mi ngi mel ni tey boo jëlee Sénégal 14 régions yi ñu ni par exemple région de Dakar vingt grands électeurs la Thiès 50 la fii 30 la fii nangam région bu ci nekk boo fa ëppalee mooy état yi boo ci ëppalee benn voix nga jël tous les grands électeurs yi fa nekk donc mën nga ëppale ay nit bu ñu calculer population bi yëpp mais doo ëppale ay grands électeurs pour falu mu am état boo nga xam ne ku ko gañe woon da ngay doon président ñu Conté Bush junior daanu ñu Conté waat mu daanuwaat frère am bi fa nekkoon gouverneur moo jël benn benn arrêté ni moo gañe ci ci ci ci ci état bi loolu moo ko fal ñun ñeme nañu fale noonu suñu candidat suñu candidat élection bii mujj bi joobee Biden di daaneel Trump ba fii ñu toog wax Trump nangul ni dañ ko gañe ni ñu koy contesté contestation yi moo indiwoon woon ñoom ñu dem occupé ji Capitole ba tey ñu nekk ci ay procès ñëpp a ngi fàttaliku yàggul bërki démb la le jeune George Floyd ni ko reyee tëral ko jël oom teg ko ci fi xoj ko ba mu sedd guy xar sax kenn du ko def noonu te tous les jours amul benn bis booy xëy ba jant bi so te amul nit ko ñu rey parce qu'il est noir ñooñu ñoo ñu jox ay leçons ñun passé nañu foofu. j'ai l'habitude de dire que bi France def seen révolution de 1789 pour am république bi ñu am ñoom fekk na la république lébu existait déjà d'ailleurs certains historiens bu disent que république française dañ ko recopier ci république lébu parce que lébu république amoon na euh, grand sëriñ ndey ji réew ndey jàmbur saltige ins frais Ndakaaru ainsi de suite loolu mooy président de la république ministre de la défense président de l'assemblée ainsi de suite donc certains défendent même que république française ci république lébu lañ ko jëlee l'un dans l'autre li ci am solo mooy ñoom ba ñuy tekki fekk na ñun ñu tekki donc ñun amuñu complexe dañu bokk jàng ci école ñu raw leen ñu bokk suñu duma leen ñu cours suñu raw leen pourquoi ñu war a am complexe on n'a pas ce complexe de dire que woy France nee na Italie nee est-ce que France daal dañuy toog naan lan la Sénégal xalaat ci ñu élection il se fiche de nous. comme nous également waruñu toppatoo sax li am solo ci ñun mais kenn ku nekk la ngay def nga def ko te yàlla tax boo toogee nga am la conscience tranquille li ci des mooy président woote ni dafa bëgg ñu dialoguer ñu jàpp ni lépp lu mënti xew maa ngi leen wax léegi li xew diggante Israël ak Palestine terewul ñu ngay waxtaan ña nga Égypte moom fi may waxee ak yéen nii ña nga Égypte. di négocier kon ñun ñi nga xam ni benn bopp lañ mënuñu xa kenn mënu ko xar ñaar coow loolu buy bari bëri bëri dañu mujj toog autour d'une table donc nañ ko def ci biir loolu laa wax ne am na ci réew mi ñoo nga xam ni wax dëgg yàlla man ràññee naa ni fépp fu problème am ña nga cay dox bu ko nit ñi yéegee ak buñ ko yëgul lu ko lu lu ko saafara. ma lim ci ñett ki ma ci jëkk a tudd mooy suñu xarit bu ñuy wax mu tax kan. Sénégal yu bari xamuñu ko parce que homme d'affaires la bu nekk ci ruxam di liggéey liggéeyam jàpp njàmburam muy turandoo sëñ mun taxa jege ko lool nag li may wax nag ma xam ko ndax bi ñuy waaj a inauguré jumaay Massalikul Jinaan man maa ko woo ni ko dama bëgg a seet si sëñ bi mënuma loo koy doyee man ko dama bëgg waxtaan ak moom mu fexe ba dajale président Wade ak président Macky Sall jour boobu parce que boobu benn kilifa ko nga xam politikul sax moom ma woo ni ma est-ce que yëg nga ne dañuy inauguré jumaa man ma ne ko nooy yëguma ko mun ma trois mois booba sénégalais xamaguñ ne inauguration day am feeg 3 mois danañ ko inauguré man ko mais lan mooy importance bi munuma li nga daan dox toujours di wax diggante Wade ak Macky Sall occasion la parce que dañuy invité même ay chef d'état yu jóge ci yeneen réew ci sous-région bi pour ñëw ci sëñ mun Mountakha koy jiite si Macky Sall dina ñëw Abdoulaye Wade dina ñëw keroog ba may dem tuubaa di seet Sëñ Muntaxa kilifa googu may wax dafa génne carnet cent litres d'essence génne cent mille francs boole ci ni ma essence bi def ko ci sa oto cent mille francs la ngay siyaare sëriñ bi booleel ma ko ci muy sama àddee waaye bu ma kenn tudd lii seen confrère euh, Cheikh Yérim Seck mës sa ko wax ci TFM sans dugg ci yenn détails yi buggumoon sax mu wax ci kooku noonu ki ma facilité loon ba ma dem yàlla dogal bisu bisu àllarba la woon muy taw bi ma seen bi di ñu waxtaan ci loolu mu tënk ci lim ci tënk yàlla def ci lim ci def ak ñeneen ñu ci doon doxa xëy na sax man maa ci mujj a wax mais man li ma ci def rek laa mun a wax